asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di am mbégte di fas yéene ànd ak yéen ci ñaan goo xam ne yaakaar nañ ne dina wara soxal ñu bari mbokk yi ñaan gi li ko tax a jóg mooy ku takk soxna su bees góor su takkee soxna su bees gan ñaan la koy léemoo kon ñaan gi bokk na ci li ko tax a jóg léemu soxna su bees waaye donte nag euh, ñi ngi ko gën a miine ci léemu soxna su bees taxul mu yam ca waaye lépp loo am lu bees rek soo amee kër gu bees moo xam da ko jënd wala dañ la ko may wala ñu sarax la ko wala yére yu bees wala dàll yu bees wala oto bu bees wala daal wala daal lépp loo am rek matériel bu bees wala bien bu bees bala nga koy jëfandikoo daal dañoo bëgg nga jàng ñaan gii donte nag ci takk soxna su bees lañ ko gën a miine ndax liñ naan tàgge boo gis am na jàppal truwaay liñ naan itam kuwal mburu tuddub dëkk loolu rek la mbokk yi ñu ñëw ci jàng texte bi soog a ñëw ci jéem koo tekki qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida tazawaja ahadukum imra'atan aw ishtaraa xaadiman falyaqul allahumma inni asaluka xayraha wa xayra ma jabaltaha alayhi wa acuudu bika min sharriha wa min sharri ma jabaltaha alayhi wa ida ishtaraa baciiran falyaxud bidirwati sanaamihi walyaqul mithla dalik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku takk soxna su ku takk soxna su mu nekk ab séet bala nga séq ak moom dara war ngaa jël sa nga teg ko ci bopp soxna si nga jàng ñaan gi ñaan gi mooy lan allahumma inni as'aluka xayraha wa xayra ma alayhi wa acuudu bika min sharriha wa min sharri ma jabaltaha alayhi foofu la baat yi yam nga jàngal ko soxna si ñu ne ko waaw ndax ki soxna su bees rek la yam mu ne déedéet soo amee mindaan mu bees itam euh, maanaam employé bu bees nga nekk benn chef de société wala service wala entreprise wala nga nekk commerçant wala yu mel noonu daal am benn employé bu bees uh, na nga jàng ñaan gi tifli ko ci boppam wala nga tiflil ko ko ci loxo mu raayoo bala ngeen a commencé liggéey bi wala nga jënd oto bu bees jàppal ca baaru oto ba ca oto ba nga ne allahumma inni as'aluka xayraha wa xayra ma jabaltaha alayhi wa audu bika min sharriha wa min sharri ma jabaltaha alayhi bu dee itam fas wu bees la wala mbaam bu bees wala gëléem bu bees jàppal ca ngalaab ga ngalaab ga buum boobu nga xam ne mooy doon li nga koy orienté di ko conduire di ko ko dawale nang ca jàpp nga wax bismillah eh, allahumma inni asaluka xayraha wa xayra ma jabaltaha alayhi wa audu bika min charriha wa min charri ma jabaltaha alayhi kon daal mbokk boo amee soxna su bees jëlal sa loxo nga teg ko ci boppam nga jàng ñaan gi soo amee kër gu bees jàngal ñaan gi tiflu ko ca boo amee yére yu bees bala nga koy sol wala dàll yu bees bala nga koy jëfandikoo jàngal ñaan gi tiflu ko ca bu dee soxna su bees la comme ni koy xawoon jëlal sa loxo nga teg ko ci boppam bu dee oto bu bees lu ñuy dawal oto bu bees moto bu bees jakarta bu bees velo bu bees ah lu ñuy dawal daal jàppal ca lañ koy dawale baar ba nga daldi bu dee ay oto yooyu la bu dul oto itam jàppal bu dee fas ak euh, gëléem ak mbaam euh, yu mel noonu jàppal ca ngalaab ga nga wax baat yi muy allahumma inni asaluka xayraha wa xayra ma jabaltaha alayhi wa audu bika min charriha wa min charri ma jabaltaha alayhi mbokk yi ñu ngi leen di ñaax ngeen abonné ci chaîne youtube bi di yaatal xeltiin di seetaan vidéo yi di commenter di aimer ndax fa la njariñ yi di gën a yaatoo jaa ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.